bismillah kon ñu dellu siwaat ci tomb ñaareel bi ci waxtaan wi ñuy amal ak yéen ci wàllu tabaski ñu ngi yemoon ci xaaj bu njëkk bi nangu gi nga xam ne sunu maam Ibrahima nangu na ko dogalub sunu boroom subhaanahu wa taala ci nangoo rey li nga xam ne mooy doomam waaye itam doom jooju di Ismaayil moom it nangu gi nga xam ne nangu na ko dogalub sunu boroom ci nangoo ñàkk bakkanam ak waajuram woowu di soxna Haajara nangu ga mu nangu moom itam doomam ñu tàqali ko ak moom daal di koy faat nga xam ne kon tabaski bu ñëwee bul gis rek bul gis rek xar mu ñu tëral daal di koy rendi fees ko lekk ak ndawalam toog di waxtaan déedéet xamale loolu di nuru bànneex di nuru mbégte jëlaal ju doy waar la woon maanaam lu metti la woon te ak dee la woon te nit la woon sun boroom wëlbati ko muy jamaal ba tax nga tëral ab gàtt ren di ko lekk ndawalam am ci tiyaaba kon foofu yaa ngi fi war a jàng bu baax jaam bi nangu gi nga xam ne daf ko war a nangu di jëfe ndigalul sun boroom subhaanahu wa taala ak donte ko sax dëppwul ak bànneexam ndax maanaam sa doom ji dañ koy jël yóbbu ko nga ñàkk ko dootoo ko gis metti na waaye moo gën a woyof sa doom ji dañ koy jël yóbbu ko te dañ koy rey day dee loolu ba tey metti na waaye moo gën a woyof nag ñu ne sa doom ji dañ koy jël ray ko daal di koy rey ci sa kanam ngay gis waaye loolu lépp am na lu ko gën a metti mooy kii sa dooma te dañ koy rey te yow yaa koy rey Ibrahim noonu la suñ boroom jëflanteeg moom reyal sa doom nga xam ne danga koy ñàkk ndax day dee te yow ci sa jëmmi bopp ci sa loxo bopp yow yaa koy rey loolu dara dara gënu koo tiis su ko xam doomu aadama ni ku yàlla bindee ci deretam digganteem ak njabootam lu bàyyi ko ci moom la ca ne ci mbëggeel ak yërmande ñu ne la yow nag yow yaa koy rey yow ci sa bopp loolu ana lan moo mel ne moom dara dara melul ne moom dara dara melul ne moom nga ñëw ci jëmmi doomam ji nga xam ne moom ci boppam moom moom la ñuy rey xam nga ne mos taxaw ne la dañ lay rey maanaam nga xam ne mooy da ngay dee ana lan moo mel noonu nga wëlbatiku nangu loolu te sa baay bi la wax ne la rek man daal gis naa ci samay nelaw mel ne suñu borom digal na ma ne dama laa war a rey te sax forcé wu la def na la fansur ma sa tara lu ciy sa xalaat nga naan ko ifaal ma tu'mar defal li la sa borom digal sa taju nii insha allahu min as-sabirin insha allahu da nga ma fekk may ku muñ wax naa léegi ne jamono ji ko ko waxoon sa doom bala ngaa daaneel mu rey la déclaré police ngir gis ne wéroo waaye nag sa bàyyi ne na dama lay rey ci kaw ndigalu suñ borom nga nangu dogalub suñ borom ne ko defal li la sa borom sant loolu lu jafe la soxna Haajara nar a ñàkk doomam nangu ko seytaane sax jaar na ci moom seytaane ñëw na ci xelam ngir bëgg koo bañ loo waaye yërmande yàlla dabaatal ko mu nangu dogalub suñ boroom nga xam ne ko ndigal yu metti la woon dal ci kawi jaam ñu am tawféexi seen borom ci nangu ko yàlla wëlbati ko def ko muy jamaal yàlla wëlbati tàngoor wa def ko muy sedd yàlla wëlbati sawara wa def ko muy galaas yàlla wëlbati naqar wa def ko muy bànneex waaye kañ la ca bañ nangoo dogalub suñ borom subhaanahu wa taala nga xam ne dem na bay rey ba moom sax rey na moom sax rey na yàlla reyut waaye moom rey na ndax rendi na te même ba muy rendi mi ngi am yëg-yëgu ne doomam lay rendi fekk li ma doon wax léegi rek ne la suñ borom deful dara dara ci neen lépp lu yàlla def am na xikma bu nekk ci biir bu tax mu def ko lépp lu suñ borom def rek am na xikma bu nekk ci biir boo xam ne boo ko jàngatee gis ko ndax yàlla jógul nii rek ngir ne ko reyal sa doom nii rek ngir mu rey loo loo gis rek xekk baa ngi ci biir ndax sun maam Ibrahima itam yàlla daf ko nattoon mu bëggoon Ismaayil bëggoon ko lool lool lool te bëgg gi mu bëggoon Ismaayil itam yàlla moo bind Ismaayil noo xam ne ku ku ko jurutoon sax bëgg nga ko sun borom moo bind woon Ismaayil noo xam ne même ñi ko jurutoon sax bëggeel bëggoon nañ ko mbëggeel gu taratar ndax yàlla daf ko joxoon taar bu yéeme ba noppi defoon ko muy nit ku baax ku laabiir koo xam ne képp ko gis rek da ngay am yéene ci jaxasoo ak moom ngir jikko yu rafet yu nekk ci moom ak laabiir gu nekk ci moom doonte ko sax doxutoon mu doon mag lool lool nga xam ne même ñi ko jurutoon sax mbëggeel gi baayam am ci moom rek lañu amoon ci moom waaye nag yonent Yàlla Ibrahima day koo xam ne suñ borom du ko àtte rek comme nit ñi nii ndax yonente la te leerug nubuwa mi ngi ci moom suñ borom def na ko muy yonente te ñoom waruñoo bëgg dara dara lu dul yàlla am na foo xam ne ci seen xol dara waru faa egg lu dul mbëggeelug suñ borom subhanahu wa taala te suñ borom gisoon na ne Ibrahim bëgg na Ismail mbëggeel goo xam ne su continuer mën naa dem ba yàqal ko dara ci wàllu nuboowam gi yàlla def ci moom ndax yàlla dafay fiire ci yonente yi ci seen xol te Ibrahima xawoon a bëgg Ismail lool lool xañ nga xañ ne yéex gaa am njaboot ak néewle ga ak na ko yàlla bindi woon xañ na loolu moo ko yóbbu woon ci loolu waaye suñ boroom nag digal ko mu rendi doomam fekk booba yàlla mbëggeel gi la bëgg mu rendi ko waaye nëmmul Ismaayila faatu suñ boroom booba mbëggeel gi la bëgg mu rendi ko waaye nëmmul sax Ismaayila faatu waaye bi mu ko nangoo rendi rek ba tëral ba teg bay rendi booba jëmmi kon mbëggeel gi la doon rendi nga xam ne bëgg gi mu ko bëgg moom la doon rendi nga xam ne léegi mbëggeel gi dee na te it bi mu wëlbatikoo gis na ne doom moom faatuwul suñu borom musal na ko foofa ca la leer ak nu boobu gi gën a dellusiwaat ci moom mu delluwaat fa mu nekkoon ci tolluwaayu leer ak nu boobu ak bëgg yàlla ak gëm yàlla ak doyloo yàlla loolu xañ na ñu bari mën na leen a bañ a leer waaye loolu mooy maanaam nukta bi nëbbu ci biir xikma bi tax suñu borom di ko digal ngir mu rendi ko dafa am mbëggeel gu targum ko bëggoon te yàlla bëgg mbëggeel googu dañ ndax mbëggeel gi dafa sori ci moom te loolu mën na koo xañ leeru nubuwa gi nekk ci moom waaye bi ko suñu borom tegee nattu boobu nag ngir mu rendi ko su ko rendee mbëggeel googu dafay dee day daal di jeex ci moom te teewul Ismaayil la dund kon loolu njàngat la moo xam ne nit ki daf daf ko daf cee war a jànge ne bëgg gi mu war a bëgg suñu borom subhaanahu wa taala wërtayam ak bëgg la neen ci moom moo xam muy njaboot wala muy alal wala muy leneen lu dul moom waaye nga dellu siwaat ci natt boobu ni mu diisee waaye biñ ko nangoo ni ko suñ borom soppee mu nekk mbégte nekk teraanga nekk jàmm ba law ci aw xeetam ba nëga ni xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam jot ci ba sunna soosu egsi ci ñun ñi ñu di ko def te li bari ci nit ñi sax xamuñ lu ko sabab kon su ko defee góorgóorlu ba nga xam ne tabaski du ñëw rek daal yow nga am yëg-yëgu kuy lekkoom xar ak di seeñu ay yaxam déedéet jàngi ci lu ëpp loolu ndax lu ëpp loolu mi ngi ci jàng ci nangoo jëfe ndigalal sa borom ak lu mu diis diis te xam ne lu mu metti metti metti lu mu naqari naqari naqari bànneex rek ci topp jëfe ndigalul sa borom lu mu diis diis lu mu metti metti lu mu naqari naqari bànneex rekk ci topp ak ngërëmal yàlla ndax tey bisu teraanga la bisu mbégte la waaye du woon bisu mbégte du woon bisu teraanga bisu tiis la woon bisu naqar la woon waaye nangu gën ca nangu dogalu suñu borom nag moo ko soppi tey mu nekk bisu mbégte kon bu tabaski ñëwee na la jàngal nangoo jëfe ndigalal sa borom ak donte ka tiis na te xam ne jëfe ndigalul sa borom jàmm rekk ci topp waaye na la jàngalit nangoo moytu tere yàlla foo mën a toll te xam ne lu mu neex neex neex naqar doo nga ciy topp tere yi suñ borom yi lu mu neex neex naqar rek a ciy topp te bépp bànneex bu boo xam ne naqar ciy mujj amul njariñ waaye bépp coona bépp naqar bépp tiis boo xam ne bànneex rek ci mujj wàññiwul dara te yow boo xoolee ndigal yi la sa borom digal yow diisul jullil wooral joxeel azaka waxal lu baax bàyyil lu bon yow néewuñ la deyal di yow kenn néew la reyal sa doom kon ndigal boobu yow war na yomb ci yow ngir nga jëfe ko yow liñ la digal lépp yow rek sax la amal njariñ ndax jaamu gi ngay jaamu sa borom yow lay leeral sam xel yow lay setal sab xol yow lay dundal sa ruu kon kay loolu war naa yomb yow kenn néew la dañ lay rey yow kenn néew la dañuy rey sa doom loolu ndigal war naa yomb kon na la tabaski jàngal nangoo jëfe ndigalul sa boroom lu sa bakkan bañ-bañ bëril ak moom ci jëfe ndigal ak bàyyi tere xam ne loolu ci la sa ndam nekk ci la sa teraanga nekk ci la sa sutura nekk te tere yàlla yi nga xam ne lu mu neex-neex naqar rekk la ci yow sutura su xaawi ko képp la ci yow alkande rekk la ci yow waaye daal yow moom danga fay bëgg a bàyyi farata yi sunu boroom yi di njëkkante di profitoo di xëccoo ci sunna daal li nga gën a sawar mooy sunnas xottil ay yére nga sol sunnas daal moom jëndalub gàtt rendil lakkal lekkal yow daal boobu sunna nga gën a tànn daal nag ci ndigali sun borom yi nga xam ne farata la ci yow lu bari ci doomu aadama yi da ngay gis ñu xintiwoo tabaski jox ko solo soo xam ne farata yàlla yaa ngi fi wër leen te joxuñ ko ko nii am na ci ñoo xam ne luñ ci def rek xeeb ko danga ci gis ñoo xam ne ñaara danañ dem ba sax di puukariwu ci xarum tabaski te farata yàlla yi wër la amaana sax julliwoo gee démb xëy na tey da ngay tabaski xoolal loolu ñaata bari julli nga am yow defagut taxaw ne tey da ngay tabaski te mënoo ñàkk tabaski faratay sa borom yi jiital ko tabaski du puukarewu bisub jàngat la bisub dellu ci yàlla la bisub fàttaliku la bis bu fees dell dell la ak ay settantal waaye rek du noos koo xam ne da ngay noos dem déedéet bisu fàttaliku bu baax li ngay def lan moo nekkoon sabab bi la yanaal allaha luxumuha wala dimauha yàlla soxluwul ndawal gi wala deret ji taqwallahi la bëgg nga jële ko ci mu wekk sa borom ba bu la digalee nga def ak lu mu diis diis bu la teree nga bàyyi ak lam la tere lu mu neex neex loolu mooy dars bi la tabaski jox te jël ko xalaat ci nga jariñoo ko xamal tabaski loo ci gis ci teraanga lépp rek jëfe ndigalu yàlla moo ko jur jëfe ndigalu yàlla rek ko sabab kon bul puukarewu soo ko mënee rek defal muy sunna soo ko mënul nga xam ne wàcc na la ndax tabaski sunna si sax balay tege ci sa kaw danga koy man ba noppi mu door a nekk sunna ci yow nga xam ne sax boo ko mënul sunna si nekkul sunna ci yow sunna si tabaski balay nekk sunna ci yow mooy da man gi day am ba pare mu door a nekk sunna ci yow loolu kon jërul puukarewu boo ko mënee def ko te yàlla tax da nga jéem a jàngat li ngay def lan la lan mooy sabab bi delluwaat ci lan moo ko waral kon bis la boo xam ne bu ci doomu aadama xalaatee day xam ne bis bu ko mën a dolli la ci digganteem ak boroomam waaye lil asaf bu muy tuur rek daf koy wàññi bu muy tuur rek bis bu koy wàññi lay doon waaye du bu koy jariñ te fekk bis bi daf ko waroon a jariñ ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala li ci topp mooy ñu tënk rek wane ne bis la boo xam ne kon ànd na ak ak julli julli goo xam ne mooy jiitu sunna gàtt bi di ñaar rakan yoo xam ne ci yoor yoor bi ci lañ koy julli ànd ak ay takbiraatam ci niñ ko jàngale woon nga xam ne julli gi ab yoor-yoor lay doon maanaam ñaari saar yi ñu ciy jàng ginnaaw faatiha tam mën nga ci jàng sabbih isma rabbikal a'la ak wasamshi wa duhaha rakaa bu njëkk bi day am juróom-ñaari allahu akbar nga door a tàmbale jàng faatiha ak saar boo kàbbaree da ngay jàng faatiha wala ngay jàng faatiha sax boo kàbbaree rek kàbbar bu njëkk boobu da nga ciy dolli juróom-benn muy juróom-ñaari kàbbar nga door a jàng fatiha ak sabbih isma rabbikal a'la su ko defee boo jugaatee taxaw allahu akbar ja nga wax taxaw da nga koy wàññi muy benn nga tegaat ci juróomi allahu akbar door a jàngaat fatiha ak wa shamsi wa duha su ko defee doonte yor-yor la tiwut njàng mi da nga koy béral wax ko ca kaw loolu mooy doon julli gi su noppee itam dana def xutba boo xam ne bu xutba ba ci digg bi day toog jugaat eggale li ci des. ginnaaw buñ jullee ba pare nag ci lay imaam ji door a ray li nga xam ne mooy am tabaskeem bu ko defee keneen ku mu doon bu ñibbee këram mën koo def waaye dañuy bëgg imaam bi ci boppam na njëkk a rey dañuy wax ni koo xam ne dangaa njëkk a rey sam tabaski imaam bi la di doon jiite julli ndawal rek ngay am waaye sunna gàtt bi mën nga koo ñàkk kon nit ñi teey bañ a yàkkamti da ciy am solo bàyyi ba imaam julli ba pare ba rey am xaram boobaa keneen ku dem këram rek mën a def nim def su ko defee loolu mooy doon julli gi nga xam ne buñ tëbaskee ba pare itam bisu tëbaski bi ak ñaari fan yi ci topp yëpp bëgg nañ nit ki def ay takbiraat yoo xam ne ginnaaw jullik farata lay doon la tàmbale ca tisbaar ja ñuy njëkk a jot buñ yooreeree bañ julli tabaski ba ñëw tisbaar ja ñuy njëkk a jot la fa tàmbalee ba ca ñetteelu fan ba bis yooyu saa boo julli jullik farata ba pare rek nga def takbiraat yooyu maanaam boo julli jullik farata ba sëlmal rek nga wax ko ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti allahu akbar nettali boobu wér na teew tam am na beneen nettali muy nga wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu boobu nag moom moo gën a jot boo ko mënee allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti yoon mooy bi ma njëkk a wax bu ñaareel bi ma mujj wax te ne boo ko mënee moom moo gën mooy nga wax allahu akbar ñaari yoon teg ci laa ilaha illallah dellu waxaat allahu akbar ñaari yoon teg ci walillahi alhamdu mooy nga ne allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah daal di wax allahu akbar ju ànd ak waaw muy wallahu akbar tegaat ci allahu akbar teg ci walillahi alhamdu loolu boo ko teewloo rek lu bari leer la allahu akbar yaa ngi teewlu ne yàlla moo màgg yàlla moo rëy moo màgg moo kawe ay mbir laa ilaha illallah yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom allahu akbar teewlu màgg sun borom gi noonu xam ne walillahi alhamdu ca dëgg-dëgg walillahi alhamdu ndax xam nga ne moo si di jalaal la woon ñu ngi nii xëy toog ne dañuy julli ñëpp sol ay yére yu rafet waajal ay bernde yu am solo te lépp doonoon bi su naqar ak tiis suñ borom wëlbati ñu ko muy xéewal gu mel nii wallahi ndeysaan moo tax boo ne walillahi alhamdu rek xam ne war na waaw bisub lan la woon lan la woon bis bi bisub jooy la woon bisum njàqare la woon bis bu doyal waar la woon waaye tey ñu ngi nii xëy sol yu rafet toog boole ci waajal ay bernde yu yaatu yu ñu war a def lu waral loolu kan moo def loolu kon walillahi alhamdu moo tax sant yàlla di ca war lool saa boo jullee ba sëlmal rek ci julli farata yi ba ba muy man ñetti fan dañuy bëgg nga di ko def allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu loolu boo ko dee waxte boo de ko teewul sax liñ la wax nii teewlu xew-xew yi ak mbir yi rek dafay am solo lool loolu mooy takbiraat yi nga xam ne dañ ko def ci ginnaaw julli gi bis bi itam yendoo ci baaqiyaatu saalihaat am na solo lool ginnaaw bi nga julli jee tabaski ba ñëw nga yendoo ci subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar am na ci solo lool bis la boo xam ne itam di ci bàyyi xel way dawle yi di leen ñaanal am na ci solo suñ mbokki julli ñi faatu ñëpp ñu bàyyi leen ci xel ñaanal leen ci xam ne ñun ak ñoom ñoo ko daan bokk di def tey suñ borom dogal ñu jóge fi ba noppi yow it nga xam ne yaa ngi ci yaa ngi ci suluk yëpp boobu yaa ngi ci ci ci système boobu ci nga ne faaw rek am na tabaski goo xam ne dana ñëw te doo ko fekk faaw nga def na ñoom faaw nga fekk leen te sa xamoo tabaski gi ngay def nii mooy sa tabaski gi mujj ci kaw suuf wala déet ndeysaan léeg-léeg nit yi defu xew-xew ci xew-xew yi ñëw ci xew-xew yi diine yi nga jot ci benn di ko def te fekk mooy bi ngay mujj def ci kaw suuf du la fi fekkaat ba noppi nga umpale ko lool kon ñu di ci bàyyi xel way dawla yi te di leen ci ñaanal ñoom it dana ci am solo lool kon ñu ngi taxawlu foofu rek di jéggalu bu baax nag di ñaan suñu boroom yóbbu ñu ci ci jàmm ak salaam te lépp luñ ci def mu nangul ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu